contre son candidat. waaw xam nga candidat bi moom. franchement li lii tamit xam naa ni lu lu jar a bind livre la. <laughs> parce que euh, président Macky Sall. Euh, man du du la tàmbuy interne moom ma intéressé. franchement seen cuisine boobu. mais dafa am lu am solo lu nekk. avec le candidat Amadou Ba. mooy assemblée nationale bi mu nangoo une mise en accusation de Amadou Ba comme responsable de la corruption de membres du conseil. président validé loolu ni leen dem leen ngeen defar commission d'enquête ba pare reconduire Amadou Ba. waaw xam nga situation boobu man jàpp naa loolu moo waroon nekk un fait bu doy waar moom démissionné wul. moom ci moom mi démissionné wul mu toog c'est un candidat boo xam ne luñ kuñ jara ku jara ñu wax ak moom la ndax ñoom seen camp doy waar ñun dañu ni. Sonko mooy Jomaay Jomaay moo Sonko. Mhm. mais ñoom boo nee Amadou Ba mooy Macky Macky Amadou Ba ñu bu ko fi wax <laughs> ñoom fi mu nii parce moom li mu bëgg a def mooy. dafa ni woon je dans la continuité du président boobu mu ngi nii vraiment mu ngi soog a ñëw léegi mu ngi ci ginn indi il est dans la continuité dans la rupture wala la rupture dans la continuité hmm. moom ça marche <laughs> dans les deux sens mais ce qui est important avec Amadou Ba sénégalais yi war ko comprendre hmm. au delà de dàq nañ kii ak kii mooy post yi mu occupé il est comptable de tout ce qui sa passe tey jii bu ñuy laaj Amadou Ba lan mooy sa programme. mënul wax je vais lutter contre le chômage. mënu ko parce que ça voudra dire que reconnaître nañu chômage am na fi. su ne je restaurer l' état de droit mooy nangu na ni te moom moo nekk premier ministre jusqu'à bërki démb. il est totalement comptable du bilan de Macky Sall. dégg naa barki dem mu ne il va renégocier les accords de pêche xaw yu demee noonu. non loolu yooyu moom. il faut que journalistes yi soient préparés. pour élection koo xam ne un an léegi ci gouvernement boobu aussi. xam nga li am. <coughs> Aminata Touré Aminata Touré. bi mu génneeg léegi yàggul. législature bi ngi mais mi ngi si yéen. non c' pas une question de mu ngi ci ñun. ou pas Aminata Touré je pense que bindul seen programme. bindul suñu programme. ba pare si ñëw ñoom di jour ba ngeen di njëkkee di présenter programme ma nga fa woon donc ñun mënuñu xam lu xew ci biir parti beeg yooyu. xam nga moom laa lay xam nga un soutien électoral. un soutien électoral bokk la koo xamante ni da ngeen di préparer ab Euh, gouvernement de euh, de collaboration wala dara Aminata Touré du candidate. dama ni la le journaliste yi ci seen bopp ñoom ñoo war pour cette élection là bañ a focaliser wu ci par exemple ndax euh, les proches de Amadou Ba dégommé nañ leen et cetera yooyu c'est des faits politiques à commenter bien entendu. Mhm. mais pour ñu évaluer les programme ak ak personnalité candidats mais Amadou il faut ñu xam. moom en luy même nan la nekkee ci gouvernement Macky Sall être comptable de tout ba pare nit ñu comme que génn na nekk na candidat il a quelque chose de nouveau bu mu mënul woon a proposer aux Sénégalais tout le temps qu'il a été au gouvernement yooyu moo am solo il faut que lui pose cette question Amadou Ba n'est qu'une création de Macky te fi mu toll nii amul lenn d'innovation bu mu mën a indi mm-hmm. te bi mu nekkee premier ministre sax initié wu ko commencé wu ko donc moom c'est un c'est c'est un leurre politique c'est un Amadou Ba est un leurre politique mënul nekk premier ministre jusqu'à bërki démb daal ni il va apporter des solutions pérennes sur le chômage il va régler la question de l'université définitivement li ñu koy laaj mais mais pourquoi solution yi nga yoroon jéemoo ko mettre mënul ni amul woon les leviers je pense que Macky Sall politique la taloon soxla woon na premier ministre boo xam ne moo koy régler les problèmes moom politicien la dañu bëgg wax ne Amadou Ba pendant tout le temps mu nekk premier ministre euh, impacté wul dëgg-dëgg ci ci réew mi di doxee c'est-à-dire que am na ay prémices yu fi jaar yoo xam dañ naan kii je donne par exemple l'exemple de Idrissa Seck bi mu nekk premier ministre xam nañ ne am na loo xam ne dañ naan lii ça ça porte la signature de Mara comme on disait à l'époque Macky bi mu nekkee premier ministre ñu ne les chantiers de Wade ci la commencé génn nga bëgg ñu wax ne Amadou Ba premier ministre y a y rien qu'on peut ni lii moom bi Amadou Ba nekkee premier ministre la ko Macky Sall mën gisuñu ko amul impact en tant que premier ministre alors que moom gravir na quand même les fonctions bi mu nekk Amadou Ba nekkee ministère des affaires étrangères lan lañ mën a retenir ci moom rien du tout li mu nekk premier ministre yëpp nee naa le toutes les crises qui sont passées lan mooy impactu Amadou Ba à part le silence total bu mu nekkoon dafa effacement total donc kii bu ñëwee ni tey man mën naa régler les problèmes du Sénégal on lui pose juste une question mais pourquoi defoo ko bi nga nekkee premier ministre te nee na moom il continue. Ah, mais il dira que ni c'est pas lui qui définit la politique de la nation aussi hein? non non mais loolu bokkul ak définir moom nee na il politique de la nation bi mu bëgg a teg. Hmm. mooy bi Macky Sall nekkoon loolu la wax. mais ajusté. mais aju <laughs> xam nga maanaam ñu en problème de paradigme moom li mu lu mu mën a wax quel que soit alpha li ma la wax que soit sur les accords de pêche su ne da koy renégocier it on lui posera des questions ñoom xam nga Ousmane Sonko ba muy wax renégocier ay contrat lu ñu ko daan wax. populiste nga. Mm-hmm. oui kenn mënu fi renégocier des contrats déjà signés. moo tax c'est ce qui est important pour ñun c'est pas le fait ndax ay proches am ñëw nañ ndax Macky Sall soutenir ko kooku c'est important pour les analystes politiques. Mm-hmm. mais li nga xam ne jamono yi dañ koo soxla. Mm-hmm. mooy que ce soit ñun ci suñu programme. mais Amadou Ba moom il faut qu'il vous nous explique le bilan du président Macky Sall. c'est a comité de l'État aussi. ah liggéey liggéey yàgg na bokk si. ñuy liggéeyal état depuis même temps wu PDS nga xam ne mi ngi fa woon oui le waxuñu le commis moom mi nga xam ni c'est le politique lépp Amadou Ba rek peindre pendre ko en noir non du peindre ko en noir moom moo ni moom xam nga ñun dañu ni jomaay mooy Sonko mais moom ak kaam nangu ñu ñu ne ko euh, Amadou Ba mooy Macky mën na nekk il a il est il a le droit bañ ànd ak moom bu ko neexee bañ a ànd ak Macky bañ ànd ak Macky Sall am na si droit bu ko neexee suba suba suba ñu bañ a ànd après moom mu dem mu demal mu demal boppam parce que ku ñuy dimbali rek la. non non non non président non président c'est un ancien premier ministre rien ne l'oblige à rester. oui dégg nga. Amadou Ba moom nee naa la man je juge pas l'homme en lui-même. Mhm. mais dama ni la il est comptable à 1000 pour cent du bilan de Macky Sall. léegi comment à quelques jours de l'élection présidentielle 15 jours mu génn ci gouvernement daal ni il a un programme alternatif bu mu appliqué wul woon. c'est que nit ñi aussi il faut ñu yee seen xel ci loolu c'est ça le problème important mooy ñu montre ko ni ko d'abord yow bala ngaa ñoo wax sa programme. Mm-hmm. il faut nga wax ñu tu comptable du bilan ak ak ci ban degré. ci ban intensité moom je crois le bilan moom. waaw assume bilan assume le bilan léegi moom si s'il dit que ni y a mois fii dañ ko ko wax bu ñu nekk suñu relation ak France lan la waxoon. Euh, le seul problème c'est que tout va très bien. que tout va très bien. on n'a pas de problème donc tey su ñëwee. bind ni il n'y a pas de problème. su ñëwee bind ni il faut réévaluer suñu relation France dañ ko laaj qu'est-ce qui s'est changé euh, entre temps. Mm. parce que élection yi dafa war a nekk élection yu leeral Sénégal yi kenn waru leen a dugal. Mm-hmm. ci ay euh, lëër yoo xamante ni. Mm. dañ leen war a leeral et c'est vraiment la presse. Mm-hmm. cette fois-ci bu leen ni parce que une deux ñu ne. Euh, homme politique yi amuñu programme. oui mais mais mais, mais dis, disons homme politique yi indi le programme c' est bien mais ce que Issa dit également est ce que mën nañu exclure c' est à dire que tey soo tegee Amadou Ba teg Bassirou Diomaye Faye tu dis que su amee quelqu' un qui a l' expérience de l' état xam comme ça comment ça fonctionne qui est prêt pour l' emploi comme on mais la balance. Euh, ah bu dee loolu kay nga jëli Moustapha Niass. s'il vous plaît nag nag. non xam nga Sénégal expérience su état malheureusement. <laughs> day mel ni homme d' nomination moo la koy def. Mhm. c'est c'est ça qui est terrible. Mhm. homme d'état dañuy jàpp ni ku nekkoon ministre la rek ku occupé woon ay fonctions état. Mhm. loolu du homme d'état. expérience su état mooy lan. ab euh, Farba Ngom mën nañ ko considérer comme homme d'état parce qu'il a été gravité ñaata nit nga gis ñu occupé ay fonctions assemblée nationale et cetera. donc expérience boobu ñuy wax expérience bu yàgg ci état. dafa am loo xamante ni moo ko gën. encore une fois. muy une vo un programme clair. boo xam ne da nga ko am kii alternative ak une volonté. mais du programme kese parce que am na ñu bari li ñuy posé wu question mooy Diomaye ak Sonko kat mooy si jiite réew mi bu ngeen gagné yaa ngi wax si candidat am seen candidat si am na ñuy laajte loolu. la mooy Diomaye ak Sonko loolu question boobu. comment si si Amadou attendez comment président de la République investi de pouvoir constitutionnel. Mhm. di signer ay décret nga ni ndax moom. bu yéegee. non bu ñu nee kuy jiite réew mi du officiellement kii jiite xam nga li ma li ma lay a laaj. yaa koy dégg certainement même président bu am patron. bu am patron waaye. léegi président lu muy amee patron. c'est que techniquement il faut qu'on explique. qu'est-ce qu'il va faire avec Sonko léegi qu'est-ce qu'il va faire mais loolu du question. non comme da nga ñoo duggloo si ay programme non Amadou Ba bi aussi nañ bàyyi ba mu commencé mu jox ñu programme. non non loolu du programme yow waxoo ma programme. da nga ni ma <laughs> relation bi Ousmane Sonko. <laughs> nara comment ça va se passer. ça va se passer posé woon naa ko il y a une ou deux semaines mais il ne se passera rien du tout autre que le mm. président assurera la plénitude de ses compétences. Mm. la plénitude. lu mu nommé Ousmane Sonko comme li ñu doon wax Idriss Seck ak Wade aussi. lu mu li ñu doon wax ci Idriss Seck ak Wade la dualité au pouvoir yooyu yëpp du si am. mais yooyu c'est des fausses dualités. président hmm. de la république su bëggee dégoma premier ministre soxlawul bu koy nommé du ko tàggu. bu koy dégomé du ko tàggu. c'est clair si journalistes yi yéen a am parfois nag tendance di créer ay affaires yoo xam ça ça ne peut pas xam nga constitution Sénégal ah. yow yaa wax si candidat wu jàmm ah. waaw candidat jàmm waxuma bu ci wax. mais je veux te dire. <laughs> Mhm. constitution bi ni ñu ko taayee. Mhm. place su président amul takkandeer. amul takkandeer il peut pas quel que soit le post bu Ousmane Sonko mën a jël après par la suite. Mhm. benn nit moo comptable. mooy ki nga xam ne moom la sénégalais yi voté mhm. donc loolu c'est un faux problème. boo xamante ni yow Macky aussi benn nit moo comptable muy de déedéet no non non Macky lañ fal. suñ jëlee exemple responsabilité xam nga lu tax compte sain am. Mhm. amul décret boo jël te fekkoo ci signature Amadou Ba. c'est lui le responsable xam nga ñu defar compte sain ministériel. parce que yow yaa responsable. il avait la bi Macky Sall lu mu signé amul lu tax ñu koy wax contre saint mooy yow mi conte signé yow yaa responsable c'est pas le président mhm. bu ñuy topp yow la ñuy topp kenn topp président bi c'est ça que ça veut dire mais moo tax moom mooy contre signé c'est lui la ñoom ñoo ñoom ñu contre signé ab décret ñoo responsable président yoonam nekk ci donc tey Amadou Ba mënoo ko détaché de Macky Sall donc en termes clairs euh, si si Diomaye Faye est élu il y a pas un problème Sonko Diomaye munul am à la tête de l'État kooku munul y aura munul nekk c'est-à-dire pour mu am mhm. nee naa la il faudrait que euh, xaw ma sur sur le plan constitutionnel mu mën a am concurrence de pouvoir mhm. même bu doon da koo nommé mhm. sauf que fii Sénégal constitution bi ni ñu ko tëggee mooy le président est sommet amul kenn ku ko mën def ombrage munul am xanaa mu mu bëggal ko boppam mais mënul am. d'accord donc loolu moom franchement. c'est un débat de journaliste non c'est pas c'est que. <laughs> xam nga les politiciens yaa leen gën a xam. oui euh, euh, xaw ma comment comment l'expliquer man. bi même ñi ko soulever parce que jógewul ci ñun jógewul. mais parce que li li tax euh, euh, question bi Issa posé ko ça me semble intéressant mu posé ko mooy da ngay dégg même euh, wax nga ko ah la classe politique même du côté du pouvoir ñu bëgg la créer au sein même de Pastef. des pro Diomaye et des pro et les gens se si jamais Diomaye est élu est-ce que Sonko ak voilà quoi. no mais moom laa tey jii bu ñu élire Diomaye. Mhm. en quoi Sonko peut s'immiscer simiser dans l'architecture institutionnelle. nan la ciy duggee lu dul président ba moo ko ci dugal. moo ko ci dugal. moo tax man la seen seen problème dualité yooyu mooy ñoo xamante ni xëy na dañoo bokkoon parti parti bi am ay tendance. Mm-hmm. yi député féete woog yow. premier ministre bi yi député ni ànd na yow et cetera et cetera. mais yéen amu leen problème yooyu. mais comment on peut avoir ce problème parce que l'hypothèse ne s'est même pas posée. d'accord alors euh, Mame Birame mm-hmm. euh, li ñu wax ji yëpp mooy ñi ngi woon ci mbiru euh, Amadou Ba ak. Macky Sall ñoo xam ne ñu jàpp ne ce sont ses proches Macky Sall jëlee leen ci gouvernement bi tey. y a deux thèses qui s'opposent ñenn ñi ne oui Macky Sall dafa mere amadu Ba. moo tax mu dàq ko dàqaale ñi ko doon soutenir yëpp indiwaat sax ay ñoom renforcer du jeu ay ñoom Mame Mbaye Niang ñi nga xam ne il ne se cache ñoom leur opposition Amadou Ba ñeneen ñi ne waa ji jox ko poste Lat Diop jox ko poste Lat Diop d'ailleurs bi ñu wax ne proche am Amadou Ba la ñeneen ne